salaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di am mbégte daal fii ci euh, seen euh, télévision. Euh, Kébémer TV euh, di kontaan ci képp nga xamni ni actuellement yaa ngi jàkkaarloog ñun ci seen émission bi nga xamni rek modi di sunu ndaje ngeen andi ci existe NFT mu fas yéene dalal ki nga xamni modi Cheikh Bouba ñu fas ko découvrir euh, découvrir ci li nga xamanteni mom lay yëngu muy walu musique ñu am ay questions yo xamanteni bëgg nañ ko ko poser pour contant lo képp nga xamni ni actuellement yaa ngi seetaan seen émission sunu ndaje. donc dañ leen di baye bàyyeeg ngeen nuyoo ki nga xamni rek modi Cheikh Bouba.

Altinai kebe mer Altinai kebe Altinai kebe mer Fala mbok yey daje Fala jamu je nek waxaasindaani ñëw mbel gor kuure dañuy ñëw njabi faal saq dañuy ñëw mam njañu lay jóge ñëw ba bëggee dugub ñu jaay gabaga gyatanyu chaila lwerer damal nyoben tai wala mbokk yey daje altina yi kebe mer mam gañu lay jóge ñëw mam gañu lay jóge ñëw Altina ikebe Altina ikebe Altina ikebe mer fala nuyu jam fala mbokk yay daje fala am da jàmm yay daje ndax jëkkandoo jàmm ca kan mam janu lay yëge mam gañu lay jóge que oba yesaay yesaay waa gis ngeen altine yi Kébémer découvrir nañ ko muy son bu neex bu am solo macha allah bokk ci album bi nga xamanteni mom le Cheikh Bouba di wadj diko préparer vraiment son bi neexna na tarkal donc euh, buñ ñu li nga xamni ni altiné di Altine Kébé xam Cheikh Bouba dañ lay tal suñu micro euh, su ko defee rek nga euh, nuyu ñi nga xamanteni actuellement ñu ngi lay sétane ensuite nga wax ñu sey jaar-jaar ak lan mo waral album bi Cheikh Bouba. à l'aise ñu ngi leni di siyaar di leen bëggee et di ko sàkku ci yeneen yéen ñëpp man maa ngi tudd Boubacar Ndiaye euh, dëkk fii euh, Kébémer di chanteur auteur et compositeur dëkk fii ci gox bi ñu naan Kébémer euh, région de Louga en fait que man maa ngi commencé def musique depuis 2001 voilà ñu def fee aventure ànd ak sunu benn mag bu baax bu ñuy wax Ba Cheikh Ndigal Ndigal Ndiaye ma koy nuyu au passage waaw muy ku baax moom it ndeysaan boot ay rakkam euh, tey euh, bu ñu egsee fii ci musique moom moo franchement moom ndax moom moo nu gëmloo suñu bopp ba nu toll fii muy nit ku baax euh, donc ñu jógee ñu jógee ñu jógee Kébémer à 2000 dem Casamance def benn aventure donc Casamance ku nekk xam na jamonoy 2000 Casamance ni mu métte woon tàng franchement bëri lol ay coow waaw ah, dem bi lu nekk nag doon nañu ko dégg ndax suñu mbokk xama boo jógee ci say mbokk ni yaa ngi jëm Casamance xama franchement du ñu bëgg nga dem du question kon sax dañuy bañ xama leneen ak leneen wala nu mu mel waaye ku dégg ay riiru Casamance ci jamono yoo xam ne Casamance méttoon na quoi ñu jóge fi def benn aventure waaw ah, ñu àndoon ah, ñun groupe Ngéwërim bi yëpp en fait que ndigal jiite ñu ñu dem fi Casamance <coughs> dem def 2000 euh, euh, ba ba 2008 donc 2008 ñu jógee foofu noonu euh, Grand Village ni waaw comme génne nañ suñu premier album parce que suñu premier album ak Ngéwér Rimo ñu ngi ko génnee euh, ñu ngi ko génnee 2000 après ci lañ def aventure boobu bu ñu demee euh, Casamance donc def 2000 ba ba 2008 après fa lañ jógee nag ñëw Ndakaaru commencé buuxande ci yenn ci yenn festival yi xam nga commencé jouer ci yenn milieu public yi commencé jouer ci centre culturel yeeg yooyu noonu quoi. Euh, donc fa la nekk fa la nekk ba ba deux mille euh, deux mille treize donc ci leen voyage quoi suñu première tournée en Europe voilà donc euh, loolu loolu foofu rek lay lay teg baaraam pour le moment donc Bouba mooy kan mooy mooy artiste boo xam si nii donc suma expérience yëpp maa ngi ko jëlee ci ci Ngéwérine ma fait donc def naa fi aventure nag en Afrique waaw dem naa fi ay Guinée xam nga dem naa fi ay dëkk dëkk yu bëri ci ci Afrique bi waaw xaw nañ fi wër as tuuti xam donc euh, mais Guinée moom moo ma gën a marqué ci suma ci suma aventure yëpp ma def parce que foofu laa jànge flûte donc foofu tamit laa jànge ngoni joué ngoni xam nga euh, rencontré fa tamit ak ay artistes yu bëri yoo xam ni si franchement xam nga yokk nan ma yokk nan ma yokk nan ma doole doole bi mooy lan mooy doole euh, doole aar waaw ndaxte aar di ko defandoo ñi nga xam si dañ ko bëgg ba pare di ko defandoo ñoo xam si dañ ko xam donc loolu noonu boo boo ci dajee boo dajee teeg ñoo xam ne sii nii ñoo ci loolu la ñuy yëngu yow xam a am nga mille chance quoi te loolu loolu moo xaw a jafe ci aar en fait donc ma def fi Guinée euh, gine maa ngi fa dem normalement maa ngi fa dem 2011 euh, donc ànd faak suma benn suma benn papa moo fa yóbboon bu ñuy wax Vieux Mbar fay yàlla na yàlla xare ko aljana moo ma jële fii euh, ci otoom donc yóbbu ma ba Guinée ñu dem mu jox ma néeg ma dëkk mu jox ma wax ma message boo xam si message bu foor message boobu ba léegi mi ngi sama bopp mun ma da jóge fu sori li la tax a jóg nekk ci mooy liggéey bi la fi bi waaw ndax ku nekk xam ni yoonu waa yoonu yoonu musique dafa xaw a dafa xaw a dafa xaw doy waar rawatina ngay gone ci jamono yooyu noonu xam nga waaw ndax dinga gis lu nekk loo xam si di nga gis li lay fakastal daanaka li lay fakastal moo mooy ëpp donc donc donc état boobu boo ci réussir rek en fait que yàlla mën na la dimbali waaw yàlla mën na la dimbali. donc ñu jógee foofu noonu après ma ñëw Guinée teewul boobu ba léegi ñu maa ngi ci ngéwarimu mais ngéwarimu euh, toujours mi ngi fa donc da nga fay jógee donc et puis ndigal grand bi tamit may ñëwaat toujours ci grand bi rek parce que lépp foofu la moom moom biitam moo doon xam nga mooy euh, artiste ngéwarimu yëpp ko ci nekk xam nga jéem a maîtriser xam euh, Afrique Afrique de l'Ouest quoi mi instruments yi fi nekk yi nekk biir Afrique de l'Ouest xam nga lu ci mel ni ay riiti donc ay xalam ay kora xam ñoom seen moom yooyu noonu daf ko daf ko yàgg daf ko daf ko yàgg bëgg quoi parce que moom nee na loolu mooy base Afrique waaw donc loolu noonu moo dëkk Afrique ñun loolu lañu moom donc yii yëpp dañ ko jéggaani rek ci yoon wi lay ñëw mais ñun loolu mooy suñu base en fait voilà donc ma dem moo taxoon nag ma demoon jàngi loolu noonu quoi waaw koro bi may dem moom ma jox weccit bu bëri xaalis bu bëri ni ma demal nga jàngi loolu noonu ma koy gërëm ba tey ci ci sama yoon waaw donc après nag euh, donc bi ñu demee euh, ñu jóge fii à euh, 2013 dem voyager donc bi ñu jógee 2013 voyage ñu euh, euh Sénégal def nañ fi 5 ans donc ci 5 ans yoyu nonu ma jàngaat fi lu bari xama nga intégré ci ay groupe ñu ci melni ay euh, Jeune Afrique ay ay saxaat xama international la j'ai fekk Alibeta xam international la moom xama amna lu bari lu mu def ci ci man quoi franchement parce que la ba doon xool ay stylem de jouer ni muy jouer xama musique ni muy xama

Ah, ay kuy ngeen xam nga te kuy du du bokk benn bal ku ci nekk am nga luy nelaw ci yow loo xam si war nga ko mën a yee en fait war nga ko mën a yee ah, donc ah, ku ci nekk war ngaa mën a amal say fu bopp teewul ba léegi groupe bi moom mi ngi fa du mus a du mus a gars du mus a tas te loolu mu waxoon noonu ba léegi mi ngi ci léegi donc bi ma resté en France maa ngi fa mille 2018 bi donc ci laa woo sama benn xarit bu ñuy wax sang mbaay defe naa xam ngeen ko yéen ñëpp sang donc ci la intégré sang ni ko ñoo ñu former groupe donc début bi sax xam ay ñom bay faala ñom ñep ñi ngi foon mais xama comme europe rek leg leg da ngay am yeneen idée yu bokul ak yeneen yi gaay am gaay ñom dañu am ay idée donc ci lan euh, resté man ak sang ak sama ben xarit bu ñu wax frédéric donc ci lan former bouba et manko donc bouba et manko mom mi ngi euh, france le judo à, à 2018 fofu la fofu la judo donc bu lolou wesso ah, ah, donc dama leen di ñamal ben morceau bo xamni si ni mom uh, mi ngi bokk ci album bi album bi tamit après dinañ ci xuus waaw donc li ma leen di euh, ñamal euh, morceau bi nga xam si ni moom la album bi tudd muy yaay. ci euh, vraiment ni ñëpp kontaan nañ ci riche na gis na ni depuis nga nekkee xale xam naa ci nga bëgg li nga xamante ni mooy musique boobu ba léegi yaa ngi koy topp. nit nag nee nañ bu tàyyiwul ci li muy def il faut mu gis ci résultat te résultat yi gis nañ ko

Euh, xam ni yoon bi tamit euh, c'est pas facile par yenn saay euh, day neex par yenn saay mu naqari mais bobu ba léegi bàyyiwoo donc ba la ñuy ñëwaat ci yow dañuy dem rek découvrir son bi nga xamante ni mooy yaay nga tuddee ko yaay ku nekk xam na ni yaay dafa sax ci xol ku nekk xam na ni yaay dafa neex lool nga am ci ñu am ci donc xam naa ni titre bu ñuy neex lay doon dañuy dem découvrir son yaay après ñu dellu si plateau bi. Yay kai wahi, yay kai Kai wahi, ñëwal nga jël si ma Yay kai wahi, yay kai Kai nga jël si Yaay ñëwal waay fa nga ma bawoon yaay ba may xalel ba léegi maa ngi fa toog di la xaar yaay booy xam naa ni du yaay jooju di sànni yaay ne ñëwal fii yitte yi jamono la jàppoon rek nga bàyyi ma fa sa doom màgg na tey jii léegi bëgg laa gis yaay ñëwal ñëwal ñëwal ba mën a nekk ñëwal yaay kii ma meññoon ci daara yi ba mën a nekk ñëwal yaay yaa ma meññoon ci daara yi dunya yaa ñëwal waay lekk gu ma mënti lekk nga togg ko ma yewoo sa wet daf may gënal yaay sama yaay yaay kaay waay yaay kaay kaay waay ñëwal nga jël si ma yaay kaay waay yaay kaay kaay waay ñëwal nga jël si ma yaba ñëwal yaay Yai yaibo ikai wai yaisa madola mami yaibo ikai wai yaibo ikai wai yaisa madola mami yaibo ikai wai amna yena chi yaumile yaibo inyawul amna yena chi yaumile am na yéena yóbbu la màkkatal mu karama nga siyaare na bi am yéene tabaxal lay kër nga ni nongu ca kaw fu la nekkoole yaay woy kaay waay doba kay boy kaay waay Masha'allah, allah tarkal euh son yaay bi amna solo dawna yaram ñepp gis nañ seen bop ndax yaay dafa neex lool donc euh, vraiment man sama bop di wax ak yow sax son bi daf ma dugg lool lool parce que c'est très important Quel mënu ko fay neex na ba fi neex yam sincèrement parler euh, mais cher Bouba euh, après li nga xamante son nous nous nga defal ñu flip ndax gis naa ni euh, yaa ngi ciy def lu rafet man xam naa say jaar jaar ndax am na fu ma jot naa la suivre donc xam naa ni macha allah gis naa ni li li nga xamante ni moo di Philippe Paul yaa ngi ciy def lu doy vraiment man boo koy def sax sama yaram day daw parce que neex na neex goo xamante ni tarkal la euh, gis nañ ni aussi jaax nga ci euh, dem nga fi Guinée jàngi li nga xamante ni moo di Philippe Paul bëggoon nañ nga ñamal ñu tuuti rek ci Philippe Paul su ko defee gars yi découvrir lan mooy Philippe Paul donc kii mooy flûte pël waaw moom moom laa jàngi woon Guinée Conakry donc ma def benn démonstration bu ndaw ci flûte

bu Kébémer donc fi lañ commencé fecc ñun ñëpp suñu ay papa yoroon ko ay ñoom euh, père Talla Mbaye moom moo ma njëkk a euh, jox par père euh, pas de danse Baye Talla yàlla yàlla na ko yàlla xaraat jana muy suñu papa ju baax moom it ndeysaan man bu ma duggee ci aar gannaaw yàlla moom la xam nga parce que je me rappelle très bien li tax ma fecc benn bis dañu wàcc jógee chantier man ak Sidi Diop donc Sidi ni ma booy kaay gunge ma waay ñu dem parce que man damaa war a ji. donc ci biir gunge boobu noonu ci laa dem fekk gars yi di fecc am euh, donc euh, artistes yi am ku manqué woon xaw ma moral la xaw ma kan ci gars yi euh, ci la ma taala mbaay ni ma fecc ko mënoo man noonu sama tànk yaa ngi ngañ siraan ni ko olof yi di waxe sama tànk yaa ngi rap rap bi ma xam ni man ma fecce quoi en waaw ba daan fecc sax dama day ren may retaan xam nga xaw ma nan la doon fecce xaw ma ban tànk laa leen jiital mais après xam nga yàlla muy dara teewul commencé ma dem ba intégré ci groupe bi donc man noonu laa fecce donc après ma jógee foofu noonu euh, comme man damaa soob xam nga ci damay bëgg di daal fu nekk comme fecc laa la la laa nekkoon ah ma commencé di jouer ay droma après ngéwér mu après maa fa doon jouer droma parce que ki seen drom si bi moom mbuur laa jóge te daan léeg-léeg da daan tardé suñu spectacle yi ma fexe ba jouer droma donc bi ma jugee ci droma yi noonu après xam nga comme ndigal moom amoon na amoon na amoon na guitare ama kër ga moom danaan indi instrument yi parce que day bëgg gars yi di laal instrument yi quoi ci laa commencé jël eh, guitare am xam nga di ci jouer ndànk-ndànk di ci jouer ndànk-ndànk di tànn ceeb quoi ba xam nga ba korog sama benn xarit bu ñuy wax big maa ngi koy nuyu ba tey moom it moom njëkk may benn guitare quoi moom moo may guitare ci laa commencé doon débuter voilà après ci biir loolu noonu def naa fi aventure yu bëri xam nga voyagé naa fii xam nga ci dëkk Afrique yi génn naa fii dem naa fi ay Guinée ak feneen feneen xam nga waaw dugg nañ fi ay dëkk yu bëri pour rek yokk suñu xam-xam donc waaw parce que dañ naan aar moom <coughs> boo ko bëggee faaw nga def ci ay jéego faaw nga génn xam nga dem dëkk demaat dëkk xool la nit ñay def xam waa nga jëm caa jël as lëf boole boole koog ci li nga xam si ni yow xam nga mooy sa culture quoi donc loolu moo lay may expérience ci aar voilà. waxtaan bi neex na lool tarkal la euh, j'espère que euh, incha allah après album bi euh, di nga ñu defal tournée fii ci Sénégal xam naa ni say projet loolu moo ngi ci su ko defee nga dugal ñu ci li nga xamante ni rek moo di région yi pourquoi pas Kébémer parce que ñun ñëpp ñu ngi xaar album bi fii ci Sénégal. set bi génnee bu neexee yàlla. bu kaset bi génnee incha allahu ba tey nii sax weesagul maa ngi xool euh, peut-être balaa ma balaa ñu retourné incha allahu ñu ngi jéem a promouvoir xool ba xam naka la ñuy defee benn soirée euh, galayaabe wala soit place publique wala wala CDEPS ñu ngi ci ñu ngi ci ñu maa ngi ciy waxtaan ak sama gars yi maa ngi ci waxtaan ak jibi jibi sànq rek mi ngi ma wax moom it abaa tamit mi ngi ma ciy soññ na ma grand xool ñu def ñu def quelque chose balaa ngay dem affaire yooyu noonu quoi mais li ma gën a li a bëgg sax mooy que ni ñu génne album bi bu ñu génnee album bi ñëw xamoom ñëw ñëw ñëw présenté album bi en live parce que man man live sax laa gën a fort man live mooy sama mooy sama bagage quoi comprendre nga incha allah dinañ dinañ génn album bi ci kàttanu yàlla ñëw présenté ko askan yëpp xam nga man leen ni leen lii la ñu bu ko defee du yam sax Kébémer mais li li wër Kébémer région bi yëpp incha allah fu ci nekk nañ fa dem xam nga may la concert xam nga ba Saint-Louis voilà ba Saint-Louis dinañ fa dem parce que xam nga am nañ fa ay soppe tamit quoi. waa di la wax ni rek ni la li li li jeune euh, Kébémer waaye namoon incha allah mi ngi fi te dinañ leen ko indil. voilà yooyu la ñu ngi ciy voilà. mais cher Bouba pourquoi euh, Bouba est le Manko. Bouba moom moo yoroon initiative bi quoi waaw man maa ko man maa ko donc comme aw moon moment bobu lan la fa doon def xam donc man ma formé groupe bi groupe bi bima koy formé en base maa ngi maa ko formé man ak sama ben grand Alassane Ndiaye mom mo fa njëkkoon nek après sama ben gaay bu ñu wax Guillaume nek fa ak ben ben batteur Rubi xama mané grand Alassane comme man maa ngi fi léegi. naka la ñuy def pour euh, pour former benn groupe xam nga moom kam dafa jàpp et puis temps may ko loolu ma ne kon garaawul quoi xam nga léegi man group bi nan ko pour le moment nan ko nan nan def buuba et manko quoi manko xam nga c'est c'est l'ensemble quoi ñëpp ci lañu xam nga waaw su suisse beeg xam nga chinoise beeg beeg ku ñëw rek xam ci nga ci yaa ngi ci biir quoi comprendre donc foofu la buubay manko jógee quoi après la ma sama benn xarit euh, sang mbaay ci laa ko ci laa ci laa ko woo moom mu ñëw intégré xam parce que yëfam la mom moom mag moom ñoo far xam muy suma mag ju baax tamit ma koy nuyu waaw booba léegi ñuy liggéey te dara mos cee ñaaw tamit quoi donc bu bay manko foofu la jógee voilà donc après euh, fi mu nekk nii ñuy liggéey benn quatre trio euh, man la sang mbaay ak Frédéric moom moo ñuy jouer basse waaw donc man maay def euh, guitare chant xam ak ay morceaux dañuy def tamit ngoni dañuy jouer ay plusieurs instruments sur scène donc loolu noonu nag moo ëpp nag moo gën a impressionné sax tubaab bi ñun ci suñu musique léeg-léeg gis dañuy woote sax léeg-léeg euh, benn spectacle wala ñu créer benn affaire maanaam tubaab bu nekkee ci biti bu ñëwee ci salle bi danaan ana ana ana instrumentiste quoi parce que yàlla dimbali nañu ñu ñett nit la ñu doon mais da ngay dañuy def def ni sax salle bi mille mille mille personnes ñoo fa ne di jouer musique tellement que suñu musique dañ ko liggéey di manière boo xam si loolu lépp li ñu ko may base bi moo doon ngéwérin mu quoi ngéwérin mu nga noonu nag moom moon topp yaa moom top ba ci kaaw bi moo tax suñu fond musical xam nga doo ko dégg sax xam nga amaana xëy na di nga ko dégg mais man li ma koy dégg boog bëriwul en fait foofu la foofu la foofu la basé basé sukkandiku ci musique quoi voilà foofu la mu sukkandiku ci musique à part voilà. si si sa carrière li nga xamante ni moo di nga wër rythme jaar nga fa. Euh, def nga fa lu am solo macha allah mu nekkoon groupe boo xamante ni groupe bu am doole la fii si seen ci Kébémer si Sénégal partout. en Europe ñëpp xam nañ ni nga xamante ni rek moo di ngéwërin ma mais on dirait que actuellement nii euh, si je me trompe pas on que ngéwërin mu dafa tas mu tasul. non ngéwërin mu du sa tas ngéwërin mu du sa tas ngéwërin mu euh, euh, li ko tëgg tasu ko foofu dañu nekk ay ay xarit nekk ay doomu ndey. sama nijaay moo ci am mi mi ngi ci mu ba tey yow mi may laaj nii yaa ngi ci ngéwërimu man maa ngi ci ngéwërimu donc ngéwërimu famille la famille la boo xam si nii famille bu suudee et puis dara yàqu ko Eh, ñi ngi ci ñi ngi ci biir waaw ñi ngi ci biir quoi donc xama euh, askanu Kébémer euh, toujours nag loolu noonu loolu noonu dafa war a leer seen bopp quoi ñoo xam ne Ngéwérin euh, maanaam bitu grand bi ndigal maanaam li doon li doon bitam ci ci ci Ngéwérin mooy que ni Kébémer am ay artistes yoo xam si nit nii dañ leen di ràññee xam nga dañuy briller partout dans le monde waaw moo taxoon moom mu mu daan sonn xam nga mu daan sonn ndigal du tëgg tëggul. mais mais li ñu ne ci bopp ci na parce que moom moom da wax ne defal lii defal lii te après noonu même boo bañee fi nga fi nga toog fi euh, la woon donc dama yoroon ay droma cinq droma xuma genre quoi may tëgg quoi mooy jamonoy marimba rek xam nga may joué du joué du li ngay joué dafa ëpp xam nga ko mais li may joué nan la ëppee ñu xuloo fa ba ba ba poñe ko fa ñu xeex quoi mais morceau bi ma doon wax xam nga mais c'est vrai bi ma tëddee ba yow xam naa ni man li ma doon wax xam naa ni am na quoi man maa bëggoon lu neex mais moom li ma doon wax c'est vrai dafa ëpp te loolu noonu ma li ma doon joué mi ngi sama poste mais dafa ma doon wax ni ma wàññil rek wàññul wàññul dara quoi mais expérience yooyu noonu yëpp ab dañ ko dajale xam nga ku ci nekk di indi say say grain de sel say bagage ñuy tabax ba tey xam nga yàlla def lii quoi franchement moom it ma koy ma koy gërëmaat <laughs> xam nga encore une fois quoi di la wax ni la rek nga wari mu tasul xam nga famille la ba tey ñi ngi joué même France dañ fay joué dañ nañ fa ngir euh, euh, comment s'appelle ndigal ñëw na fa am ay date ñun ñu bàyyi suñu ay date ñëw man Ismaïla Sang Mbaye ñun ñëpp xam nga ñëw joué ensemble te loolu moom mooy loolu mooy ngéwrim ak Mbay Fall loolu mooy base ngeurim kon ngeurim moom jàppal ni xam nga ba tey mi ngi existé waaw suñu ay rak ñoo fi nekk quoi voilà. Euh, kon Cheikh Bouba dañ lay bàyyi rek nga def sa mot de la fin. su ko defee rek nga may ñu benn son bu neex euh, gars yi nga xamante ni actuellement ñu ngi ñuy suivre sur Kébémer TV su ko defee ñu mën a euh, rebégee yaa ma gën a xam. waaw donc donc may euh, may gërëm ku nu ko olof di waxee ku ku gërëmul xalab xaw di gërëm suma ay sama ay nijaay tamit franchement sama nijaay sëñ moodu moom di wax ni moom moo ma yar xam nga jàngal ma métier franchement xam nga boobu ba léegi. xawa euh, maa ngeek moom muy sama kilifa tamit di gërëm soxnaam Yaasin suma tante ju baax jooju moom it euh, ak sumay rakk ñoom ñëpp di gërëm suma nijaay moo caam mi moom it di la gërëm ma Mamori tamit di gërëm bu baax a baax di gërëm suma frère Jibi moom yàgg na moom it boobu ba léegi moom mi ngi ci xam nga musul bàyyi benn yoon xam nga di gërëm sang sang mbaay moom it ñooy liggéey xam di nuyu sama gars yi ñoom Ibrahima Gueye ñoom Baye Ndigal xam nga di nuyu ñoom Mbay Fall xam nga ngéwërin mi ngi yëpp Babacar xam ñoom it ndeysaan ñom ñepp ñing ci biir ma ngi leen di xama ma ngi leen di ma leen di jaajeufal di leen wax leen ni leen na ngeen japp rek xama japp leen fi ngeen tek seen tank fofu la te bu leen ko teggi yoy ma ngi lay gërëm bu baaxa baax bay mori di wax ni la ni la li ni yalla nekk société waaw na la nekk société bu mag bu kawé sa ndort ci barke sayyidina muhammad am ambition bi xam nga vision bi dans la future et dañ lay ñaanal tamit suñu borom guddal saw fan xam waaw ba nga son sama tonton bi na bu ko dara ci Mohamed jaajëf kon ba beneen ah, ci yeneen numéro ah, ñu musique ah, allez yokku ngëmam nangul ndogal laaw bi moo yokku sa ngëm-ngëm ngëm-ngëm gi law ci yow bi jam dafa war a nangu ndogal moo yokku ngëmam nangul ndogal laaw buur bi moo yokku sa ngëm-ngëm ngëm-ngëm gi nelaw ci yow la di def soo ko na la fi ba nangul li di def la fi ba fa jëm jambi yow nangul nangoo la nangul li yàlla may sa borom mi nga nangu day dem nga bañ day dem ndax li yàlla namu ci jaamam bi nit mënu ci dara dara dara kon ni jaam yow nangul jaam yow nangul jaam yow nangul nangul jaam yow nangul jam nangul ndagul laa buur bi moo gën ci yow fii ba fa nga jëm soko nango xaritam ngay doon loo ko ñaan mu may la ko fii ba fa nu jëm jam nangul ndogalul laa buur bi moo gën ci yow bi fii ba fa nu jëm soo ko nanguwul yaa koy dëkk xeex te dalay daan jël bu kenn dootul min yàlla kenn du bare ak moom mm. yow jaam yow nangul jaam yow nangul jaam yow nangul nangul ma amoon mbégte dalal ki nga xam ne moo di Cheikh Bouba fii ci suñu émission suñu ndaje ngeen ànd ci woon ak siste NFT muy mbégte ci man jot nañoo xam kan mooy Cheikh Bouba jot nañoo xam ay jaar-jaaram biento album bi dina disponible donc euh, ñu ngi kontaan lool euh, di wax rek suñu mbokki internet yi bu leen fàtte di abonné suñu chaîne YouTube euh, Kébémer TV ñi ngi amoon mbégte àndax yéen ci seen émission bi nga xam ne rek moo di waa ñuy remercier suma sama caméraman bi nga xamante ni sama caméraman bu ñaawul bi bi jàkkaarloog man man mën lol lool ma sha allah mu di Modou cham Ndiaye ñu ngi lay gërëm di la sante ci liggéey bu rafet bi nga xamanteni yang yaa ngi koy liggéey suñu ndaje donc di leen jox rendez-vous bientôt incha allah gros bisous à tout le monde ciao et à très bientôt <laughs>